convergence des jeunesses républicaines di COJER bu Touba ginnaaw ñaari camp yoo xam ne ñoo fi amoon ci jamono yi yëpp amal nañu seenub assemblée générale daal di tabbu Modou sàll ngir mu doon seen coordonnateur. suñu réunion générale bii nga xamante ne bii moom lañu weesu yàlla dogaloon ñu yaatal ko bëggoon waxtaan ngir dem ci assemblée générale comme ni mu ko waxee rek jëruma ciy jaaraat dañ faa jóge ci réunion bi ay candidats juddu fa. kenn ku ne dem sa kër ñu xool ci groupe yi gis ñu déclaré ne ñoom coordinateur Touba cogère bu Touba la mu jaaxal ñëpp. gis naa benn candidat bi def benn vidéo partagé ko ci ay groupe wane ne nag moom coordinateur la ci lañ obligé nag woote réunion générale woowaale ko woo ñëpp nag ngir bëgg ñu ñëw toog ñu waxtaane yëf yi waaye nag malheureusement benn candidat bi rek moo ñëw teew. moom it maa ngi yëg ne ñoom am na kenn koo xam ne moo ngi dem moom it di def leneen ak ñeneen may wax ne nag kon ma ñun officialiser nañ ne moo Modou Sall. deux candidats la woon benn ba fàq na dem na bi fi nekk la ñu maintenir def ko la coordonnateur national de la COJER de Touba muy monsieur Modou Sall. ñoom ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci alliance pour la république di APR fii ci Touba di xam xamle ne benn COJER rek moom moo am ci dëkk bi mooy bi nga xam ne moom la Modou Sall jiite. ñu ngi wax ñëpp muy ba ci COJER national Touba benn COJER moo fi légitime muy bu le coordinateur Modou Sall ndax ci lañu gisee ndawi membre fondateur yëpp ñu ngi ni ci gannaawam su ma waroon lim dama fiy fanaan. fàttali te li may wax damay fàttali nañu dugg ci réseaux sociaux yi ñu xool concert bii ñu nekk deux ans yi ñaata activité lañ fi def. ndax gëm-gëm lañ am depuis gëm-gëm bi ñu am nag ba tey moom moom la ñuy insisté ba léegi te duñ ci deltu ginnaaw parce que nag concert bi nga xamante ni bi moom lañu bokkoon jip boobu ba léegi yaakaar naa ne ñii ma dandal ñi ñëpp ñu ngi ci woon. wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam na ne COJER bii nga xamante ne bii naataango yëpp ñu ngi fi ñu ngi nii. ku ne xam na ne kuréel googu mooy kuréel gi nga xamante ni bii moom la ñëpp xam ndax ñoo fi nekkoon daaw nekk fi daawaati jéeg ak ak daawaati jéeg benn groupe way fipp nag bu fekkente ne bii dañoo jóg ñëw ci réunion bi ñu organiser réunion générale wala dem assemblée générale peut-être dañoo yaakaar ne bu ñu demee assemblée générale danañ leen gagné tax ñu génn déclaré ne ñoom ñooy coordinateur général lool kuréel gi looloo tax mu mobiliser waat nii ne loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñun ñi nga xamante ne si ne ñooy ànd ak ministre de conseil Isma Dioum bés ni que ñun ànd nañ ñëw pour ànd ak Modou Sall pour jàppale ko ci combat bi nga xam si dugg na ci ñun nag nekk na ndaw yoo xamante ni si ne nag séemu xam na ma bu baax a baax man doon naa nit koo xam ne su ma xasee ba sóobu ci dara xaw ma xaw ma reculer. Modou mi nga xam ne moom lañ fal moom di xamle ne dina def kéemtalaay kàttanam ba doxal ko géer yóbbu ko fu sori. te gëm naa ni ki nga xam ne moom lañ jiital muy man di la coordonnateur li tax ñu jiital ma dinaa ci sama tànk tubay dinaa joxe sama bakkan encore fois de plus. combat bi li tax ñu gën ci engagé wu mooy dañoo gis ne dañoo am benn produit potentiel muy suñu coordinateur national di Moussa Sow le président de la république Macky Sall am confiance ci moom tabb ko jiital ko ci ndaw ñu mu ci liggéey liggéey bu am solo loolu moo ñu motivé loolu moom moo tax ñu fas yéene jël kuréel gi fas yéene ànd ak moom liggéey bi mais du tee ñi ngi tàllal loxo ñëpp moom Modou Sall di xam ne ne vision président Macky Sall 2035 la jëm jeexagul. le président Macky lu ma am c' fàttali keneen ki nga xam ne moo jiite woon beneen cogère bi di Talla la nekkoon candidat moom it jotu la teew ci assemblée général bi.